dañuy rafetlu li nga xamantene am ci ay accord yu ñu signé ci Guinée Bissau le 3 août 2022 mu am ci akori yi li nga xamantene suñu xel xaw na see ñaaw ndax ci mbir yëf yi dafa am ñi nga xamantene ñoom ñoom ñoom ñoom ci jàpp ñu bàyyi ñépp ba mu des ñett ci ñett ñaar ñu ñu ngi ci prison bi muy René Capin Bassène ak Omar Ampuy Bodian ñu am ay laajte yi nga xamante ne bëgg nañ ko wax laaj kii di état du Sénégal ak opinion internationale bi ñi laaj ni ki nga xamante ne mooy César Atoute Badiate nan na mën a def ba signer ay accord moom mi nga xamante ne bokk na si ñi nga xam dañ leen condamné à contumace ba pare lancé mandat d'arrêt international contre ñoom mooy lan mooy César Atoub Badiate justice su Sénégal nee na <coughs> fépp fu ñu ko mënta gis dañ ko war a jàpp indi ko Sénégal ñu tëj ko rab ci kaso bi waaye suñu xel ñaaw na ndax kooku bokk na wala kooku moo signé accord yi nga xamante ne pour jàmm dellusi ci Casamance ñuy laaj ndax mandat d'arrêt international bu ñu lancer contre mom ndax dañ ko yëkëti di laaj ni ndax dafa am grâce présidentielle wala dafa am leneen luy nuro ak loolu li nga xamantene ne loi Sénégal moo mee ni képp ki nga xamantene ne topp na la bul na ci mee rek dang ciy gën <coughs> ñi wax ni ñun xalaatuñu benn yoon ni li tax ñu condamné René capin Bassène Omar Ampuy Bodian ak César Atoub Badiate état bi dafa bëggoon am moyen de pression bi nga xamante ne da koy teg ci César Atoub Badiate pour am accord de paix bu fekkee loolu la dañ koy ñaawlu <coughs> te di wax ni René Capain Bassène ak Omar Ampuy Bodian bu demee ba César Atoub Badiate mën a nekk ci biti ñooñu war nañoo mën a nekk ci biti encore ñu wax leen ni René Capain Bassène Omar Ampuy Bodian ñun réeréew ñu benn mbir ni ñooñu dañ leen jàpp tuumal leen tëj leen ci kaso yu Sénégal pour mën a jaar am ay accord de paix yi ñuy mettre yi nga xamante état du Sénégal dina ko meuna signer di tek ay pression ci ñi nga xamantene ñom ñoy euh, euh, way woy ñoy wa MFDC